premier critère bi il faut que journaliste bi mu am accréditation ANPS du joxe accréditation CAF mooy joxe accréditation deuxième bi ñu ne journaliste bu nekk pour nga mun a nekk ci hôtel boobu dañuy anticiper li ñuy bañ mooy lu ñuy daloon en 2019 léegi dañuy anticiper ñu moo tax ñu laaj journaliste bu nekk na joxe cent cinquante 000 francs pour tout le premier tour. troisième aspect bii nag na am engagement du ku mu yeewu rek bind ANPS ne damay dem. boo nekkee Sud Quotidien il faut que Sud Quotidien désigné la boo nekkee Sud FM il faut que Sud FM désigné la dañuy xayma di premier tour bi nga xam ne ñun war nañ fa ñëw à partir du 11 parce que compétition bi mu war a tàmbali le ba le 11 février nga xam ne booy jour final bi lu 12 ñu ñibbi ñu ne léegi lan la ñu war a mun a def ñu xayma ñu ne ko ci wàllum hébergement journaliste bu nekk il faut ko mu yoree lu toll ni un million 600 mille francs CFA.